bisimila mbokk internet ci dalleen ak jàmm lu doy waar la xewoon ca baccalauréat ba mel na luy bëgg a xew ci BFM bi gannaaw candidat bac bi di Aysatu nga xamante da doon def examen ca ñaareelu fan ba ma wasin daal di yeggali ba noppi jël raw gàddu ga nekk première du centre xew na ci BFM bi lu méngoog lu ni mel bi lay ñaari xale yu jigéen ay candidat BFM ñoo wasin ca waxtu woo xamante daanaka épreuve ya xaaj ñaari xale yu jigéen yi moom jàppale examen bu BFEM ka ca njëkk moom ba mu wasunee rek dafa fapp bàyyi del si waatu la keneen ka ca des yeew ndiggam takk fitam del si waat ne day jaayante def ni ay satu waaye la ko wàññi moo ko ëpp doole méttit wala mënul woon wannaasu lii moo ko teree eggal yi épreuve ya ba ko méttit wa dafa waaxu ci benn ci kër yi jàkkaarloo centre d'examen ba fa la dem tëdd di noppalu ñaari candidat yi nekk ay boromi jëkkër ëmb wasin ci digg examen bi faw rek ñu xaar a a xamante ne xale yu jigéen ñi daan ci jéem a jaar ndax wane na ne am jëkkër ëmb ak wasin a am jom góorgóorlu gëm sa bopp cey bu ñu moytuwulee nag élèves yépp daañu daw uti jëkkër ba noppi wéyal seenum njàng waa mooy dëgg nag njàngum Sénégal rek ku nar a xaar ba noppi ci ngir am jëkkër ak i njaboot hmm. <laughs> TV mi ngi leen di jaajëf